fan la ñuy dem jooy ñin lu ñu metti fan lañ koy jooy autorités yi nekk si dëkk bi diñu di toroxal ñin fan la ñu war a jublu ñin fan la ñu war a dem jublu pour ñoom ñu attee fan la wax leen ma ko man xaw ma ko xaw ma ko c'est pas dama koy préciser mu leer moo leet naa laa dëgg dëgguma commandant moo leet naa d'accord waaw bu buñ fiy ñëw ñetti pick-up lañ fi ñëwee ñetti oto jàppuma seen i matricule mais c'est la gendarmerie nationale koñ bi ñëpp seede nañ man nag boo gisee dama koo fekkee dañ maa dóor ba pare rey sa doom rey sama doom sama doom dañ ko dóor bal mu nekk si coma depuis vendredi ba mardi trois heures du matin wàcc liggéey mhm. bu naa mhm. ñu ko dóor bal ñoom xam nañ ko ñu yor arme yi ñoom xam nañ leen waaw ñun nag bëgg nañu justice. d'accord bëgg nañu justice. njiitu réew bi nag xam ne ñun bëgg nañu justice. ñun fi rey ñëpp bëgg nañu justice bëgg nañu nañu doxal yoon ci réew mi bëgg nañu justice justice nag ñun dinañ ko xeex ba keroog ñuy noppalu waaw. dëkk bi dafa war a tegu ci yoon. dëkk bi na tegu ci yoon ñi bay dóore ñi bay jàpp nit ñi di leen toroxal. mënu maa gëm ni sénégalais ñoom ñooy jël seeni armée di xeexal seen population pour lan pour lan ñuy xeexal seen population pour lan ñu si gën a dee ñu si gën a dee ay xale lañu amul ku si am vingt ans ay xale ñoo jóg di xeex pour dëgg taxaw si dëkk bi dëgg nag daf fee tumuranke Sénégal nañ ko wax te dee waaw merci beaucoup loolu laa amoon pour pour lu may